nuyu euh, Serigne Mountakha Bachirou Mbacké di ñaanal di ko ñaanal yàlla mu yàggal ko fi te yokk wéram di teg ci loxoom nuyu euh, son excellence monsieur le président de la république euh, Macky Sall ak nuyu premier ministre Amadou Ba di félicité bu baax di ko sant muy commissaire u Touba waaye tamit di sant ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay kilifaam tàmbalee ko ci directeur de la sécurité publique dem ci directeur général bu police l' inspecteur général de police Seydi Bokar Yàgg waaye tamit di sant ki nga xamante ni moom mooy lieutenant colonel Diop nga xamante ni moom moo njabootee euh, fii nga xamante ni mooy euh, um, légion centre ouest euh, jàll ci kii général Moussa Fall muy haut commandant de la gendarmerie nationale ci liggéey bu rafet bi nga xamante ni lëkkaloo nañ ko police ak gendarmerie di ko def ci fépp foo xamante ni euh, soxla nañ leen fa ci Sénégal waaye rawatina fii ci Touba ci fan yi ñu weesu bi le vingt cinq décembre jotee ak léegi gis nañ ni am nañ ay opération combinée maanaam police ak ay gendarme police ak gendarmerie dañoo booloo nekk benn nekk benn équipe boo xamante ni boo demee fu police dan nekk da fay fekk police ak gendarmerie nga dem fu gendarmerie dan nekk nga fekk fa police tam gendarmerie tamit ak police nga xamante ni amatul xajj ak seen ci ay zone de compétence dañu nekk ay doomu ndey bokk même combat mooy combattre li nga xamante ni moom mooy way ñaateef fii ndaxte dañu wax ni képp koo xamante ni yaa ngi Sénégal di fi yeewoo état moo la yoreel sa sécurité ni mu la ko yoreelee nag moo tax président de la république Macky Sall euh, jox ñu. pàcc boobu digal ñu waaye sant ñu ni saa su nekk nañ koy topp di ko saytu fexe ba fu sénégalais nekk ci biir réew mi waaye tamit ku dul sénégalais dëkk dëkkaale ak ñun ñu fexe ba mu nekk ci jàmm. bu bëggee liggéey liggéey bu bëggee dem doxi soxlaam dox soxlaam bu bëggee jaamu yàlla jaamu yàlla te amul te du am fitna boo xamante ni dinañ ko ci teg fii nag bi ñu ñëwee tey ci Touba dama ñëwoon ngir xoolal. seetal sama bopp ci ndigalu président de la république Macky Sall li nga xamante ni ñu ngi ñu koy yónnee ci ay rapport te ñu gis ci ni police ak gendarmerie ñi ngi fi nekk di def liggéey bu mucc ayib. loolu nag moo tax ñoo ko bokkoon ànd man ak yéen ma leen di sant bu baax di leen gërëm yéen journalistes yi ñu dem euh, ci euh, li wër tuuba dem nañ euh, d'abord fële ci boori Ndindi. laata ñuy dem Ndindi dañu njëkk a dem sax euh, rond point wu Daara Jolof dem Ndindi biñ fa jógee euh, dem nañ Mbacké ci fi ñuy wax station Elton dem ci euh, entrée Mbacké tamit fi nga xamante ni moom mooy route nationale numéro 3 bi fi ñu mën a jaaree ngir jaar Njaañka ak héliport bi pour dugg waaye mujjee fi nga xamante ni moom mooy fi ñu yàgg a poste de contrôle si Touba nga xamante ni célébé yoon la. Euh, oto yi nga xamante ni dañuy jóge Daara Jolof euh, fii ci suñu ginnaaw mën nañ fi bawoo ñëw fii oto yi nga xamante ni dañuy jóge Mbakke mën nañ fi bawoo ñëw fii waaye tamit oto yi jógee Dakar te jógee directement ci autoroute à yi mën nañ fi jóge jaar fii ñu gis ni am nay ñaawteef yoo xamante ni ay nit mën nañ ko def ci peggu Touba wala def ko ci dëkk yi nga xamante ni dafa wër Touba waaye euh, fala dinañ jaar fii suñu bëggee rëcc moo tax ba loolu police ak gendarmerie xam ko xame xamin woo xamante ni guddi ak bëccëg saa yoo fi rombee dina am ñoo xamante ni dinañ fi taxaw di way takk der ngir saytu li nga xamante ni moom moo nekk ci oto yi waaye saytu tamit ñiy romb di traversé wala bëgg a dugg ci biir dëkk bi Serigne Mountakha nag euh, président de la République euh, nga xamante ni. Euh, soppeem la doomam la taalibeem la da koy sant bu baax ci saa su nekk lépp loo xamante ni dafa aju ci dëkk bi daf ci waxtaan ak moom ba ñu déggoo ci kaw ay kàddu ci ni ko sëriñ bi nammee bëggee ko noonu ndax ni mu xamee dëkk bi ba pare yilif dëkk bi yilif communauté Mouride président jug euh, def seqi ay jéego def li nga xamante ni moom mooy li ci war looloo waral biñ ci waxtaanee ba noppi ci saa si Euh, police ak gendarmerie ñu dal leen fi yabal ñu fi def liggéey bu mucc ayib waaye du ñu yem ci loolu lépp loo xamante ni war na ko ci tabax war na ko ci indi jumtukaay war na ko ci indi ay matuwaay bu soobee yàlla dinañ ko def ci ndigalu président de la république Macky Sall ba ñii nga xamante ni ñi ngi képp ku yeewoo Touba waaye képp tamit koo xamante ni yaa ngi yeewoo li wër Touba nga mën a euh, liggéey ni nga ko bëggee jaamu yàlla ni nga ko bëggee ci dalul bakken bu dee guddi ak bëccëg nga mën a génn doxi sa ay soxla su fekkente ni daf la dab te dara du la ci fekk loo xamante ni fitna lay doon loolu mooy li nga xamante ni moo doon sababu ñëw bi may encore une fois euh, félicité waat force de défense et de sécurité waaye tamit di leen ñaax di leen wax ni boo defee liggéey bu rafet ba ñëpp tàmbale ko seetlu tàmbale koo gis loolu jàppal ni tàmbali seetlu boobu mooy yow sa tàmbali liggéey ndax nit dafa gaaw ci bu liggéeyee dara ba ñu waaw góoral ko mu mel nii Euh, da ci euh, li tubaab di wax euh, mën na la yóbbu ci nga def autosatisfaction loolu buum ñu dal saa yu ñu liggéeyatee ba nit ñi gis ni am na ci lu am solo loo xamante ni bawoo na ci ci njariñ nañ ko jàppee ak tàmbali gën cee sukkandiku def ko li nga xamante ni moom mooy xam naa loolu wolof bu xóot lay doon mais comme Touba laa nekk te maa ngi jàkkaarloog dëkku boo xamante ni waa kër Cheikh Moussa Ka ñi ngi fa ñu def ko kerkeraan. xam naa loolu am na ñoo xamante ni duñ ko dégg fii mais ñu def ko ay escalier maanaam marche boo xamante ni taxaw nga ci nga euh, jekki seqi beneen jéego gën a jëm ci kanam pour gën ci góor góorlu loolu mooy li nga xamante ni moom bëggoon naa ko wax police ak gendarmerie ni leen seen liggéey rafet na yéen a ngi ci liñ leen sant waaye lépp loo xamante ni defoon ngeen ko jàpp leen ni ab tàmbali la ngeen gën a yokk li nga xamante ni moom lañ leen di sant ak di ko xaar ci yéen te loolu amuñu sikki sàkk ni li ñu ci xaar ci résultat dinañ ko ci am. résultat yi ay résultat euh, yu dal la moo tax ma félicité leen wax naa ko léegi gis nañ ni euh, fépp foo xamante ni euh, yoon la bu yaatu bu ñuy duggee ci biir dëkk bi def nañ fa post de contrôle police ak gendarmerie mix nekk fa di saytu li nekk ci biir oto yi waaye tamit di xool nit ñi nga xamante ni ñu ngi dugg ci biir dëkk bi waaye am na leneen lu nekk ci wetu loolu am na ay bërëb yoo xamante ni naka jekk euh, ay samba boy wala ay defkati ñawteef dañ fa daan faral di dajaloo loolu it police ak gendarmerie dem nañ fa euh, jële leen fa ñi nga xamante ni dañu def lu yoon dàq ñu jàpp leen jébbal leen ki nga xamante ni mooy procureur loolu nag du liggéeyu benn fan liggéey la boo xamante ni dañ koy wéyal tàmbali nañ ko gis nañ ci euh, satisfaction gis nañ ci njëriñ waaye loo xamante ni la dañ koy gën a wéyal